gannaaw fukki at ak ñaar coowalu Barthélemy Diaz ak Ndiaga Diouf dañ ko seytu ca cour suprême bésu ñaar fukki fan ak ñaar ci weru décembre bi ñu nekk kile di bi Diaz nekk maire bu ville de Dakar jamono jile xam ne fas yéene wul tànkam jëm ca cour suprême. d'abord lu ma bëggoon wax mooy cour suprême du ma àtte. cour suprême day gestu. lu cour d'appel wax. xool est que lu cour d'appel wax est-ce que ñoom. aar nañ suma àq ak yelleef suñu militants yi suñu sympathisants yi le décembre na ngeen ma dimb rek te yàlla tax bu leen ñëw suma kër parce que fas yéene wu ma dem tribunal bu leen dem cour suprême amul solo ci lu jëm ci ndàmpaay bi ñu ko daanoon Barthélémy Diaz leeral na ci taxawaayam ak gis-gisam naa fay njabootu xale boobu te ñàkk bakkanam ma fay leen vingt millions dama ne man su ma noree fay vingt millions képp ku toog Sénégal di chômeur soxlawul ngay mbëkk gaal. bu fekkente ni cour suprême dafa ànd ak cour d'appel bu ndakaaru ndax Barthélémy Dias dina ñàkk mandat bu meeram moom ci boppam indi na ci ay leeral taxawaay bi mu ci am. Barthélémy Dias suñ ko àttee ba daan ko ba mu ñàkk dossier bi day ñàkk mairie de Dakar dama leen di ñaan ngir yàlla bu leen catu mairie de fii moom incha duma fi bouger. mbir yoon boo xam ne mënuñ cee génne politique. bu ñu sukkandiku ci maire bu ville de Dakar di Barthélémy Toye Dias moom mi nekk jege ñaaleel Khalifa Ababacar Sall di dër bu taxaw Sénégal bokk ci ñi samp seen dënd jongante njiitu réew atum 2024 xam le ne ak lépp lu muy mënti doon stratégie am déet pare nañu ci te daanaka njëkk nañ leen a jóg maanaam suuxe na. man la nekk ma ci jaaxal saay bu ñu waxee élection suba la ñu daal di yëngalaat dossier bi depuis 12 ans mënul vider dossier bi. ñu ne Khalifa Sall mooy candidat man lu xew dëgg-dëgg ça n'a rien à voir lu nekk ci ginnaaw lii ñoom xam nañ te xam naa